Euh, muy analise bu am solo euh, quand même donc euh, Samuel comme li ma wax rek même question laa lay posé dañoo gis ne quand wàllu pic yooyu est-ce que lu dem ba làq lu bare bari ci la waroon a feeñ alors que am na liggéey bu am solo bu ñenn ñuy def ci ginnaaw mais malheureusement yenn sànnante xeer yi moo koy nëbb. non non non loolu xeer yi nëbb ko moo tax ma ne la kon yéen suivre leen parce Euh, sénégalais yi moom ñu ngi suivre Ousmane Sonko te ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg ñu ngi koy comprendre euh, opposition bi nag malheureusement ay jàmbaar lañ de mais ils sont en face que ak ak nit koo xamante ni comme disait Babacar Justin Ndiaye quand mm-hmm. il attaque il tient la haut du pavé quand on lui attaque il tient le haut du pavé muy Ousmane Sonko il est tellement coriace <laughs> ba <laughs> moo tax ñëpp yaakaar ne opposition bi existé wul fekk opposition bi existé na ñu ngi jéem nag mais dañoo jàkkaarloo koo xamante ni da leen ëpp te sénégalais dañ ko jox bopp ndax chaque fois dama koy wax nag dama ne àdduna loo ci gis rek day jeex mais actuellement nii au moment où nous yàlla Sénégal ci loxo Ousmane Sonko la ko teg bés dina ñëw nag mu jeex mais opposition bi jàkkaarloo ak moom naroon nañoo sonn parce que euh, euh, di jàkkaarloo koo xamante ni dafa am popularité di jàkkaarloo koo xamante ni dafa am ténacité di jàkkaarloo koo xamante ni nit ñi lañ koo bëgg loolu yombul donc surtout mu nekk au pouvoir. donc yoolu yombul moo tax ma ne ni euh, euh, di gën a encouragé nañ gën a góorgóorlu parce que opposition aussi dafa baax ci démocratie nañ gën a ñafe rek yàlla baax na peut-être un jour viendra dina baax hmm. di ñëw ci ci ci ci li nga xamante nii moom la grand bi interpellé sur les types euh, yi ku si yebu préparé wu maa jàkkaarloo Abbas Fall directement nii man ak moom mu ne ma incha allahu rabbi amul benn ministre buy ñëw ñu lay tàccu amul benn ministre bi ñëw ñu vital la budget ren nga ñëwaat ñu vital la ko te daan roon ñu te waxoon ñu à la jusqu'à la dernière centime li nga xamante ni moom lañ defataloon fi nga ko dugal ak li nga xamante ni moom nga ñu diggoon moo tax ma ne ministre yii nii nii nii ministre yi ëpp problème ci Sénégal lu mu dara am ba tey ñu ngi nii nii nii nii parce que ils sont en face des yoo xamante ni <coughs> dañuy représenter seen gox ñuy représenter seen askan ñuy représenter seen bërëbu liggéeykaay parce que las Pastef boo gisee liste bi dafa homogène da nga ciy gis comme ñun artisan yi am nañ ci carte handicapé yi am nañ ci carte waa Moncap mooy les cadres am nañ ci carte waa doomu daara yi am nañ ci carte ñi nga xamante ni mooy euh, euh, jigéenu Pastef am nañ ci carte les enseignants am nañ ci kon donc mu jël représentation représentation nationale bi yëpp la ñu ci liste Pastef yi ku ci nekk gis nga ci bopp c'est première fois bu yàlla dafay jàmm ñuy gis. koo xamante ni ay bëtam dafa muuru mu dugg assemblée nationale. c'est la première fois euh, euh, tey bu yàlla defee jàmm ñuy gis koo xamante ni fauteuil roulant la nekk di dugg assemblée nationale te loolu maa ngi ci maa ngi maa ngi ci ñaan gouvernement du Sénégal. ñu ñu gën a gën a gën defar lu mu gën a gaawee assemblée nationale pour que. mu adapté en compte ki nga xamante ne dafa dafa mm. dafa dafa nekk ci chaise roulante. Euh, ah, parce euh, loolu nag waajaluñ ko ci assemblée bi. ndax waajaluñ ko woon parce que Pastef moo fi newul woon bu fi ñëwee rek dinañ ko waajal incha allah parce ak Pastef lépp lu war lu am rek dana am parce que dañoo wax ci rupture dafa am fu ñu bëgg a jëmee Sénégal mooy lan sénégalais bu ci nekk gis sa bopp ci biir réew mi sénégalais bu ci nekk li nga yelloo ñu jox la ko sénégalais bu ci nekk dootoo xalaat ne Europe mooy Eldorado ñu def ni comme bàyyi États-Unis ñëw Sénégal dëgg seen bopp ci biir Sénégal ñun loolu la bëgg man tey su ma sañoon ñëpp ñu nekk Europe am nañ fa expérience dañuy ñëw fii ku ci nekk ñu créer ay start-up pour que ñu mën a porte suñu économie pour mën a def Sénégal benn Eldorado boo xamante ni ñëpp dañ koy dañ dañ fay jëm si. parce que actuellement dañoo am lu jafe-jafe-jafe mooy am nañ or am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ phosphate donc lan moo ci des transfert de technologie transfert de compétence ñu former les jeunes pour que ñu mën a. Euh, euh, euh, am compétitivité pour mën a li nga xamante nii mooy suñu ressources yooyu ñu mën koo liggéey suñu bopp. Mm. transformer ko fii mu nekk économie boo xam ne dafay des fii ci biir Sénégal. Mm. parce que loolu mooy nekk li nga xamante ni mooy souveraineté économique souveraineté énergétique souveraineté monétaire pour que Sénégal dootul soxla jéggaani dara dara dara parce que tey jii suñu suñu suñu suñu système suñu système suñu stratégie d'endettement bi ak suñu système économique dafa dafa nekk loo xamante ni dafa moo ñu moo ñu sonal ba tey. parce que dafa nekk loo xamante ni c'est exogène mooy lan dañuy jëlee ji financement yi à l'extérieur indi ko suñu ko indee jël ay entreprise extérieures yooyu ñooy ñëwaat ñoom ñooy ñooy ñëwaat ak financement yi exécuté ko suñ paree dividende yi ñu jëlaat ko yóbbu ko moo tax da gis Sénégal danañ dem ba yegg croissance 7 pour cent te nit ñi dañ ko sentir ci seen poste parce que l'économie est exogène ñun nag ñu ñëw indi li nga xamante ni mooy économie endogène qui sera basé sur une endettement boo xamante ni c'est endogène mooy lan xaalis bi fii lañ ko bëgg a jëlee 64 pour cent du financement ba pare delloowaat ko fii en faisant quoi les entreprises yi nga xamante ni euh, les petites et moyennes entreprises exclusivement sénégalais ñoom leen réserver li nga xam ne mooy marché de 80 à 100 millions pour que ñu mën a am ñoom tamit mën a suqaliku pour que ñu jël ñu jël ñu jël ci entre ci ci marché yooyu 2 pour cent def li ñuy wax euh, euh, discrimination positive jox ko ñi nga xamante ni mooy les femmes parce que jigéen ñi dañ daan def ay tontine deux cent mille di natt di teggi te loolu jëmalewul euh, réew kanam ñu bëgg fem yi dem ci industrialisation ñu mën a dem dugg ci ci ci marché yooyu noonu gagné marché yi exécuté ko am plus de ay cent millions ay centaine de millions nekk ay entrepreneur mais pas ay femmes yoo xamante ne dañuy nekk femme femme femme euh, di di di def ay natt ak ay tontine foofu lañ bëgg a yóbbu Sénégal mm-hmm. mais nag dafa ay yoo xamante ni tey bu ñëwee quinze quinzième législature yi li loi yooyu dañ ko war a voter pour que mu mun a accompagner li nga xam ne mooy entreprise yooyu parce que boo jëlee benn entreprise petite et moyenne entreprise jox ko marché 100 millions ba pare na ko débrouille-toi ba exécuter marché bi mën na am problème loolu mooy indi en général les surfacturations mais dañoo war a voter ay lois yoo xamante ni bu ñu la joxee marché 100 millions petite et moyenne entreprise bi état du Sénégal jox la avance 50 millions boo xamante ni yow da nga mën a am benn indépendance da mën a am benn autonomie pour mën a exécuter marché boobu noonu. soo mm. paree li ni moom la desal la ko parce que à chaque fois euh, entreprise euh, locale yi ñuy am parce que bu fekkee dañoo gañ a marché exécuté marché bi ba pare dugal seen chèque trésor di leen dawloo wala gars yi di leen jéem a koñe wala di leen laaj ay pourcentage pour mën a mën leen a fay seen kii da nga gis ñoo xam ne dañuy topp ci seen chèque ba dee duñ ko duñ ko duñ ko récupérer te loolu dafay freiner économie baaxul parce que dette intérieure dañ ko war a éponger euh, euh, chaque mois dañoo war a éponger li nga xamante ni mooy entreprise yi parce que entreprise yooyu suñu leen fayul dañuy am dañuy dañuy asphyxie wu bu yàggee nag dañuy dañuy dañuy dee te loolu hmm. baaxul si économie bi hmm. kon donc loolu la accéder pour que ñu a fexe ba l'économie soit endogène que euh, que sénégalais yi Euh, toog ci réew mi euh, liggéey réew bi pour que euh, pour que pour que Sénégal mën a nekk un pays en voie de développement. d' accord donc Galissa sànq monsieur ne mu ngi koy wax donc type de député yi nga wax ne bu ñu demee ensemble moom la ñu fay fekk ci quinzième législature bi est ce que du yem rek ci ay discours malheureusement bari nañu ko daan wax mais même assemblée rek lañu am xuloo xeex député diwla lu fi ñëw duma contrôler dara. identifier lan mooy député c'est important euh, sénégalais yi nar a fal député yi le 17 novembre ñu xam. Mhm. député du tabax tali. exactement député du defar hôpital. député du voilà. waaw yeah. c'est important. Mm -hmm. mais nag. mais gis naa ñoo xam ne dafa mel ni ñoom bu ñu leen dugalee assemblée dañuy wàññi dund gi. créer ay emploi loolu moo tax ma ils se d'élection. non déedéet moo tax tey waxtaan yu mel ni moom solo. Euh, mais nag lan mooy député. lan mooy rôle am député dafa am légitimité boo xamante ni moom président président bu yëkkati loxo moom mën na yëkkati loxom ne man askan bi ñafe dem ci mañ gàcce gi. comme nañ ñu ko waxee suffrage universelle ñu jox la ko man tam nan lañ ma ko joxe. moo tax ñu leen di tuddee député du peuple. waaye nag dañuy bokk ci kuréel bokk xalaat bokk gis-gis moo tax ñu tuddee loolu parti. Euh, député mooy kan. mooy koo mhm. xamante ne tey président li ma xalaat ak lu mu bugg a doxal moom moo koy dooleel ci loolu. Mhm. président tey lu muy am euh, mandarga yëpp di nommé au au politique et civil et militaire moom foofu noonu daanaka pouvoir am fo foofu la yam bu buggee nag defal doxal li ma xalaat. Mhm. ci réew mi day dem ci fi nga xamante ni moom mooy euh, penc ndaw réew mi. moo tax ñoom ñu am solo trop moo tax dama bëgg nit ñi bàyyi xel euh, waxtaan yi nga xamante ni député yu ñu tabb ñu ngi koy waxtaanee ci biir gox ak goxaane surtout tey avec xarale yi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi def ay direct suñu tête de liste départementale di Abass Fall amul bis bu ñu dugg ci gox te defuñu trois chutes dañu am dañuy am caravane tey par exemple dañ nekkoon HLM biscuiterie Grand Dakar ci gox ci ci gox bu nekk boo duggee ci gox bi caravane dafa am fu muy taxaw bu fa taxawee euh, ñi ñu àndal suñu ñi ñu tabb foofu noonu dañuy jël parole tëdd liste bi day jël parole jukki ci lenn di programme bi jëbbal ko askan bi waxtaan ci ñoom euh, tey ci réforme yi nga xamante ni ñun bëgg nañ ko de 1960 à aujourd'hui Assemblée Sénégal évolué na am na fu mu jógee am na fu mu agsi waaye ci axe boobu ak ci évolution boobu noonu Pastef ñëw na joué benn rôle bu important te encore une fois man ci analyse yi damay bëgg ñu ñu relever loolu tey Bachir toute sa carrière toute notre carrière ñun ñëpp ay ndaw la ñu aujourd'hui on a l'âge du président luñ suñu rêve moo nekkoon tey ñun bu ñu demee ci école yi on voit que les écoles ne sont pas inclusives au Sénégal su ma nee inclusive mooy tey way laago bi moom amul luñ ko mettre en place pour que mu mën ci école bi mais tey bu fekkee woy laa ko bi judd na tey mu màgg mu gis ni man de sama moroom mu ngi biir assemblée nationale loolu dañuy lancer appel aussi aux autres formations politiques ñu gën a dooleel ñooñu aujourd'hui nous on a investi sept personnes qui viennent qui sont dans le de des handicapés juróom-ñaari nit loolu lan lay wone mooy que ni ñooñu tey bu ñu jëlee à la perchoir bu ñu demee fi ñu xamante foofu la ñuy ñaxtoo fa la ñuy waxee parce que député bi beneen mandarga ba mu am mooy que ni moom jafe-jafe askan bi yow mi yow mi euh, doomi réew mi mun nga ko bind mun nga koo bind bataaxal ne ko ñun suñu gox bi lii jafe-jafe yaa ngi fi lii problème bi am na fi hôpital problème am na fi problème mbedd bi am na fi ministre boobu bu ñëwee bi ñu dénk loolu moom député boobu wax day yëkkati kàddu googu jébbal ko kooku noonu te aussi Bachir il y loo xamante ni euh, sur les douze ans qui se sont pour ne pas les vingt quatre ans man ma rappelé wu ma bu ñu demee enquête parlementaire bu aboutir. lan mooy enquête am parlementaire. maanaam tey ay député dem ci dem ci ab institution dem ci ab structure dem ci ab ministère xam nga député am na loolu. Mhm. may nañ ko moom tey mu gestu mu dugg ci benn scandale ñu dégg benn jafe-jafe am na fenn député yi autosaisir comme juge yi ah, nit ñi dañuy yaakaar ne juge yi ñooy def enquête député may nañ ko sañ-sañ ñu ibbi enquête parlementaire. commission d' enquête quoi. commission d' enquête day am xam nga juge Guy Marius Sagna ñaata yoon la interpellé législature quatorzième législature pour loolu. Pastef ci ay taxawaayam ci ay réformes loolu bokk na si. ci lépp loo xamante ni tey justice mu ngi koy càmbar député yi di ñëw commission yi ñuy nekk seen commission yi ils vont travailler en foo xamante ni nguur gi parce que te loolu mu nga la ci neex mooy que ni nguur gi nga xamante ni moom nga sekkal tey euh, boo ci amee ay lënt nga dem jox war leen càmbar c'est important il faut que ñu am ay députés yoo républicaine te Pastef ci loolu la mos a dox te lu tax loolu man ma am ci gën gën ci am firnde déjà dañoo liggéey ci biir Pastef ci biir élection yi nii rek ci tànneef bi sànq Bachir mu ngi Bachir mu ngi naan tànneef bi la plupart nu ñuy tànnee dafay poser problème ak tamit élection mode d'élection bu ñu am balaa may ñëw ci tànneef tànneef bi damay ñëw ci mode d'élection bi amul benn dëkk ci àdduna bu am un consensus sur le mode d'élection. d'accord. waaw xam nga on est d'accord. voilà exemple boo jëlee Israël. la proportionnelle intégrale fait que kenn mënul am majorité moo tax ils vont tout le temps en élection voilà. donc voilà te loolu économiquement voilà c'est pas tous les qui peuvent le supporter boo demee boo demee Italie c'est la même chose aussi voilà day jékki-jékki rek gis premier ministre benn problème day am rek mu ne on va faire des élections anticipées pour xool est-ce que majorité bu ñu amoon parce que majorité bi dañ koy mettre en cause xam nga ñun fii on une boo xamante ni c'est une élection bu sénégalais yi toog waxtaanee ko ne mode bi lañ jëm mais c'est des élections yoo xamante ni elles elles pas consensuelles parce que aux États-Unis mun nga gagner euh, mun na am majorité populaire te doo gagner élection présidentielle. Ah, bii passé ni Hillary Clinton dafa am majorité populaire parce que on a des grands électeurs. Hmm. des États ont des électeurs. oui dañ comprendre donc euh, suñu mode d'élection ñun évolué na dem na jóge nañu en 93 mu ngi koy wax. Mm-hmm. ci la ñu jógee ne vraiment il ñu gën a yaatal affaire yi pour que ñu gën gën a ay sensibilité mais ginnaaw loolu aussi même ci commission yi bu njëkk ba même ci vice il y avait il y avait un abus des des pouvoirs qui se ci Sénégal léegi dem nañu ba da ngay am presque sept septième vice président da ngay am ay vice président da ngay am ay vice xale yi sur notre liste bu ñu tànn ren on a plus de trente cinq jeunes sur la liste tey c'est la référence c'est la référence de la population sénégalaise mais aussi ba ñu nee dañuy dem ci candidature te loolu man journalistes yu mel nii ñoom Bachir ak yeneen journalistes yi ils ont toutes les infos on a reçu 2750 candidatures minimum 5 cinq par par cellule ci 5 ci 550 communes yi. Mm. déposé nañ candidature xam nga loolu xam nga loolu la tekki. Mm. pourtant président Ousmane Sonko ak commission électorale bi ak directoire bi mënoon nañu toog tànn parce que xam nañ ku nekk xam nañ suñu département bu nekk xam nañ suñu cellule xam nañ suñu coordination yi mais on a laissé la latitude aux cellules départementaux communales yaay tànn ñenn ñi dañoo juboo seen biir commune